Chia Xom Saint-Louis du Sénégal. franchement yàlla def mu noppal leen. Du lundi au de 11 à 13 sur la stv Ne le ratez pas. Véritablement, terminons la semaine en beauté, mesdames, messieurs, mes chers téléspectateurs. bonjour à toutes et tous et bienvenue contentement mbégte ak bànneex rek la ñuy àndal ndax xam na ni moom ngeen àndal pour vous accompagner de 11h à 13h j'espère quand même que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Votre ami et frère est de retour rien que pour terminer la semaine en beauté les amis yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di siyaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax bonjour et bienvenue contentement mbégte ak bànneex à tous qui nous regardent de l'autre côté à l'étranger en Italie France Belgique Hollande aux États-Unis en France waa Belgique waa Canada yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bonjour également à tous qui nous regardent ici en Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe Cap Vert Libreville Franceville ñu ngi leen di nuyu yéen tam euh, di bu baax a baax wax bonjour et bienvenue contentement mbégteeg bànneex également euh, ci ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi nii euh, ca Gabon Libreville Franceville bokk ci ñi nga ni ña nga ca de l'autre côté foofu ca Guinée Bissau Guinée Conakry Mauritanie marhaba bikum Mauritanie wanni bikum Mauritanie asalaamualeykum Mauritanie ñu ngi leen di nuyu yéen bu baax a baax a baax them. And I know for a that love me. Reason why we together with the same Senegalese people, Gambian people are together, are the same. So reason why ñu buggante reason why ñun ñëpp benn la ñu ñu ngi leen all Gambian people di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax bokk nga xamante ni ñu ngi ni seetaan fii Jal Job eh, Sangoma Ndakaaru Njaay ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp itam eh, di leen jox seen wàccuwaay fu waay mën a yeewoo Oh, on on de voir avec le promoteur Gréboy loolu naa la tegal léegi-léegi dégg nga maa ngi la dégg nag yàgg yàgg yàgg yàgg boss xam nga nag yàgg boss vous n'êtes pas stylé c'est-à-dire yow lii Grégoire boo ko soloon xam nga man sax cëkk na ba nga naan ma sa tubéy bi dafa cëkk mais boo soloon yow billaay boo soloon lii sa tànk day dell maanaam day buubu ce qui prouve que ni xamoo luy boyfriend boo yow toppoo mode toppoo tendance may wax nga naan ma solo yu njëkk yi la mais yow solo yu njëkk yi la nit ñi di sol ba tey xanaa xamoo peew amoon na dafa ñëwaat rek aw ma retour de euh, xaaral ñu yokkal ma sama volume bi euh, euh, jaru ko yi ngay def yëpp jaru ko dessin boobu dessin la rek waa ji dafa la la la li mu bëgg dessin la dessin donc jarul ngay teg ay image ak di wane ay trucs je sais pas alors j'espère quand même que vous allez bien de notre côté foofu nga xamante ni moom moo di ca Tivaouane Touba waa Bakke euh, Bawol bokk na ci waa Médina euh, bokk na ci ñi nga xamante ni euh, ña nga ni seetaan ca Nangaan di Kaolack ñi ngi leen di nuyu waa Ziguinchor Matam Diourbel Kédougou foofu nga xamante ni moom moo di ca Fatick ñi ngi di nuyu yéen tam di nuyu ki nga xamante ni ña nga ni seetaan ca bokk na ci waa Saint-Louis du Sénégal ma région ma fierté Dagana fàttewuñu leen benn yoon waaye également de l'autre côté foofu ca Saint-Louis Sénégal ma région ma fierté Lougaloo nuyu naa leen itam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog janook seen télé euh, di seetaan on est jeudi et pour terminer la semaine en beauté xam ngeen ni tey la jeudi dina am ay découverte bàyyi leen sama découverte yi ku ma indi ngeen naan ma xësal sa découverte yi da noonu ngeen yàkkamtee jeudi pour xam ñi ma indi tey xale yu mën a way laa indi xale yu mën a a mën a way nag lu leer laa leen wax Mr Grey ma nuyu MP nuyu ma ñëw let's do the show right now ma nuyu MP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 da ko bàyyi mu koy yeggale dégg nga ayca jërëjëf merci beaucoup les amis on est jeudi comme tous les jeudis euh, nous allons essayer de terminer la semaine en beauté mais xam ngeen tamit euh, képp koo xamante ni rek jeune nga nekk ci aar bi yàggul dara euh, bi nga tàmbaleeg léegi 5 ans jàpp 6 ans dinañ fësal say mbir wala nga tàmbale depuis hier Kheucha fera de telle sorte que nit yi nga xamante ni ñu ngi toog seen kër di seetaan mën la découvrir mën la xam ndax nag koo fi gis mu nekk ca kaw rek dañ koo jàppale dañ koo bumax wala dañ koo teg loxo ba mu yegg fa mu yegg ndax nit ku nekk rek ca la nga suñu borom am na kum la booleel mu jàpp ci say loxo yóbbu la kon nag ñun euh, ci suñu euh, pàcc ci kàttanu yàlla képp kuy jeune euh, di way amuloo chance génn ci télé amuloo chance dem ci rajo amuloo chance nit di la gis sur les réseaux nous on fera de notre possible de telle sorte que sénégalais yëpp découvrir sa talent xam yow la kan xam fa nga dëkk fa nga cosaanoo ak sa mën a way boo ko mënee boo ko mënul tamit dañ ko xam ah ndax man damay éviter ñu mën a way damay éviter ñu mënul way man moom <laughs> man sama new ci man daal plateau baa gi yaay am sa fitu bopp woote ni damaa bëgg 11 13 loo fi góob loo fi def nag bu bu pare di ma wax naan ma xasaa pourtant man mën naa waay de gis parce que des dama koy gis quoi da ngay invité nit mu mu woote kale ci émission bi ñu ne ko waa d'accord tu viens jeudi mu ñëw jeudi way fi loo xam ni man xam naa ni man kii li muy woy ni dawul yaramu kenn après man je man dama la koy dama lay wax ne la après man je vais prendre les vidéos et je vais nga posté ko Grégoire nit yi nekk di ree après ngeen ñëwaat naan ma noo waroo koon posé mais yaa ko way ku fi ñëw ba mënoo way gëré na nga toog sa kër te kii seytaane la grégoire mi moom yoonam newu ci moom nga mën a nga ñàkk mën moom ruubekat la yoonam nekkul ci dara kon bu ngeen jëlee seen décision ñëw na leen fekk seen baat yi ñor parce que aar bi yaatu na léegi ñëpp a ngi way ñëpp ngi way ñëpp ñëpp ñëpp a ngi way kon nag xool leen bu baax ni ngeen koy defee am invité naa fi dit grégoire fële ne ka ma invité woyal ku ne sa morom dikkal way <laughs> ci te rappel gi rek waat ñaar ñu ma invité woon way leen ma ñu ma xam nga c'est que c'est xam nga man damay ambiance sax waaye mën naa way après mu naan ma a o i i o a des trucs yoo xam préparez-vous davantage avant de venir les jeudis jeudi man caaxaane wu ma ko bu ko caaxaane jeudi ñunu xamul rek a fii ñëw te ku fi ñëw toj pour à ce que nit ñi lay gis mu xam ne kii am na benn xale boo xam ne ndar laa ko jëlee j'espère que elle est en route war na ñëw kooku moom man xam naa ne na leen daaneel parce que daaneel na ma keneen ki nag découverte la xamuma ko miinuma ko mais moom dégg naa tam ku mën a way la loolu lépp ci kanam dina leer laataa ñuy ubbi ligne bi ci sur le 33 841 23 34 je vous rappelle que je vais vous donner des tickets yoo xam ne da leen di permettre le euh, septembre bi ñu jëm fële ca CICES ngeen mën a seetaan ki nga xam ne moom moo di Wally Balago Seck mën a seetaan Dip Doundou Guiss mën a seetaan également Viviane Chidid ci euh, euh, boobule événement nga xam ni euh, di ngeen ci accom dina leen ci accompagner ñun la première chaîne de télévision privée du Sénégal kon nag woote leen ci 88 628 14 13 pour mën a fekkee bile événement mën fekkee loolu nga xamante ni nee naa du doon lu ndaw fii ci Sénégal alors nous allons débuter ak kan ci xale yi nga xamante ni ñoom ñoo xew ci jamono bokk na ci xale boo xamante ni moom tamit Euh, actuellement mi ngi mi ngi mi ngi yëngal euh, je le vois et je l'apprécie j'apprécie bien ce qu'il euh, muy ki nga xamante ni moom moo di Bass Wade yow la une très belle chanson bi marqué carrière moom tam ses débuts ñu dem ko seetaan ki nga xamante ni moom moo di Bass wala dafa am ku nekk ci ligne bi 88 628 14 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. na nga def naka mu ko kàlla. man la Aïcha Diallo. Aïcha. Diallo. Aïcha Diallo Jéeri maa ngi lay nuyu noo def. maa ngi lay ziar. yaa ngi am jàmm na yi tey. Diallo Diéry. merci Aïcha Diallo man nga ñëwaat ci 88 628 14 13 merci quand pour l'appel euh, yéen itam def leen ni moom ngeen mën a dugg mën a jël seen euh, yëf euh, tey nag comme que yëfi gone la nañ dem tàmbale ki nga xamante ni moom moo di Bass Wade une très belle chanson l'international mbokkum yaay Bass mbokkum yaay Boss Boss mais nag moom MP Boss maanaam dina dëkk bi yëpp barki yàlla boos Séré Lëmbal la njëkk manager waa Séré Lëmbal pare Séré Lëmbal ku ñëw on Séré boos manager la te ku mu manager du def ak yow un mois pare naa la non booy bi liggéeyul quoi <laughs> fekk yow yaa liggéeyul boos kii ngeen di gis nii boos manager woon na ko dégg ngeen bas ñu dem seetaan cay boos. ay xëcca yaa ñeme yàlla. jàppal ni man ak du mas jeex yaa ma jaaral ni yow ma bibi sama nobel raw na Cheikh ak Marie yaa ma gënal si ñoo ma bibi sama nobel raw na Cheikh ma wax ma bee lii lay neex ni nga ko bëggee laa koy defee soob neuf maa rey diis wan la ni ma chérie lépp yow il sera de l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo di ca Amour Café ce vendredi Mister Bass Bassirou Wade un garçon exceptionnel avec une très belle voix ce vendredi euh, foofu nga xamante ni moom moo di Pentola euh, foofu ca euh, Amour Café si sama xarit ba Zal maa ngi koy bu baax a baax di ko siyaare kon nag Bass naka xale yëpp dem seetaani incha allah rabi ce vendredi Bassirou foofu nga xamante ni moom moo di ca Pentola merci beaucoup alors di nuyu bu baax a baax Ngonish mais Ngo boss boss Ngo ay ñoom Ngone Sadia. ah ay ay ñoom viva ay waaye ndeysaan jamono neexoon na nag <laughs> bos bos jamono neexoon na parce que Serigne Tamba Mbacke sa def ci code nag gàttaan bi bu mu yëg dara def ci code waaw ayca merci beaucoup ñu wéyal anandoog yéen ba tey euh, euh, euh, ndaxte kooko doon Bassirou Wade ba tey ci 88 628 14 13 ou bien 33 841 23 34 bu ko defee nag ñu dem seeti beneen demoiselle boo xam ni moom elle était là il y a pas longtemps elle était venue avec une très belle voix c'était une ancienne camarade de classe boo xam ni ñoo bokkoon école bokk di jàngandoo pour vous dire que ni ku ci nekk rek suñu borom tracé na sa yoon moom bi ñu nekkee ndaw xale bi daf ma bëggoon daf na noboon nag yow arrêté elle était folle amoureuse de moi fu ma daan dem fu ma daan toog nekk yoo kii moom woykat lay doon man animateur ñu dem ba bokk nag ndeysaan milieu pour vous dire que ni yàlla day tracé destin wu doomu aadama bi bien avant sax 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay siyaare très merci beaucoup pour l'appel j'ai un message très fort à vous lancer aujourd'hui yaa ngi may dégg alo allo yaa ngi man yaa ngi may déglu bu baax. waaw maa ngi Grégoire dafa am benn image bu ma la envoyé il y a pas longtemps ce matin j'aimerais que tu me. Euh, que nga defaral ma image boobu parce que dama bëggoon ñu communiqué ci man ak yow grand. d'accord concernant ñi nga xamante ni moom moo di nos joueurs tey fii ci équipe nationale ku ne xam na ni dans deux mois ci la ñu jëm ci li nga xamante ni moom moo di euh, euh, coupe du monde donc suñu joueurs yi nga xamante ni tey ñi ngi fii dañu manqué temps de jeu. Euh, par rapport ak li nga xamante ni moom moo di coupe du monde bi nu jëm yàlla moo ci sa xalaat. man suma xalaat mooy. man tamit si man tamit si game bi laa nekk programme laa nekk léegi comme ni ñu ko nekkee Sénégal comme ñëpp bëgg nañu mu dem kanam donc gis hmm. naa programme bi nu mu demee léegi ma ne bàyyi man tam ma woote ma jéem a xam euh, nu muy demee quoi parce que fu mu nekk nii xam nga ku nekk soo gisee bëgg a tamit euh, pour toujours dangay ngay xam da ngay ut naka ngay duggee si yoon bi quoi. moi je comprends pas comprendre ma li nga wax de nga ne. ok ma waaw. Eh, dama bëgg a bokk ci programme bi. da nga bëgg a bokk ci programme bi. waaw. programme ban. waaw programme émission bi si boppam. Euh, yow fan ngay wootee. ok maa ngi wootee ni Bignona. Bignona. yow léegi da nga bëgg bokk ci programme bi. waaw maa ngi nii wootee Bignona. Bignona ngay wootee nga wax. waaw. léegi yow boole naa la ci programme bi. ok loolu la. loolu nga bëggoon. <laughs> waaye yàlla na nga gudd fan waay grand boole naa la ci programme Grégoire mais moi euh, euh, s'il te plaît les images ma cité ci quelques joueurs yi nga xamante ni euh, l'image plutôt yi nga xam ni joueurs yi. Euh, euh, équipe nationale yi nga xam ni euh, dans deux mois dañu war a dem ci jongante bu mag boobu di coupe du monde à savoir ki nga xam ni moom moo di je pense citer Bamba Dieng je pense citer Gana Gueye pense citer Saliou Ciss pense citer citer plutôt ki nga xamante ni moom moo di Alfred Gomis ah je pense citer Abdou Diallo je peux en citer euh, Pape Matar Sarr je beaucoup ci ñi nga xamante ni dañu manqué temps de jeu ci seen club donc nag ñu dans deux mois ku ne xam na ni ci la jongante bu mag boobu am na ñu naan certes euh, euh, euh, est-ce que dina baax ci équipe nationale mais dama leen di jox rek benn xalaat bu gàtt pour mu doon sama xalaat di leen wax ni coupe du monde c'est différent de coupe d'Afrique c'est différent de de de de de de, de Ligue des champions c'est différent aussi de euh, du championnat kon nag foo fay dem jom ak fula ak fayda ak ngor googu ngay ànd ak pour yóbbaale sa drapeau euh, boo duggee rek ci terrain bi ba gis monde entier bi lay seetaan ak di la déglu euh, pour accueillir bi la bés da ngay xam ni euh, c'est un peu différent peut-être nag tey ñu li ñu ciy xalaat mooy temps de jeu bi ñuy manqué est-ce que du am faille ci li nga xam ni moom moo di coupe du monde bi ndaxte tamit joueur dafa war a am temps de jeu pour mën a euh, euh, jéem a sauver son équipe buñ ko fekkee ni on a besoin de lui mais imaginez-vous wala rappelez-vous euh, ci coupe du monde yi ñu weesu yëpp grand grand joueur yi nga xamante ni dañ leen daan xaar ci ay ay match yoo xamante ni c'est des matchs yoo xam ni c'est serré ou bien des matchs très sérieux yow doo gis sax ñooñu coupe du monde mën nga fekk benn MP Moussa MP boo xamante ni li mm, latéral droite la wala je sais pas quoi mu def coupe du monde boo xamante ni personne ne si attendait grand joueur bi nekk ci équipe bi nga yaakaaroon ni kooku moom mooy toj kooku ñëw passé à côté donc c'est pas quelque chose boo xam ni nit ki dafay ñëw rek ni bon ñii football ñun est-ce que kon du ñu gaaw a toog wala dara yàlla rek a xam. ñu ngi leen di ñaanal nag temps de jeu ñoom ñëpp suñu joueur yëpp Lions yëpp ñu ngi leen di ñaanal temps de jeu bu fekkee ne yéen aussi am ngeen ci idée par rapport à ça mën ngeen dugg ci 88 628 14 13 comme ni ko kii defee ñu nuyu ko salaamaaleykum bonjour. ah Xassane naa def. maa ngi lay siyaar maa ngi fi. yaa ngi si jàmm maa lay bëgg lu bari. yee maa ngi lay siyaare maa ngi lay bëggee man itam. ah a naa boobu ba léegi maa ngi ndeysaan naka tey nag yaa jàmm. waaye maa lay bëgg rek ci la maa la ci tànk lay way sànq. wallaay maa la raw maa la raw fooy wootee. ngi wootee Touba. maa ngi nuyu waa Touba yëpp ba yaa ngi waaj màggal gi jege si na de. waaw quinze mille laa bëgg quinze mille ma ko tees. ah. quinze mille laa bëgg. dégguma. quinze mille quinze mille. quinze mille nga bëgg. waaw sànq ba léegi maa ngi si lañu. ah yow yow yaa ngi Touba man ñëwaguma Touba war la ñaan paaso màggal ma may la quinze millions. ah di nga ko am daa bëgg lu ma leen dalal. lu ah, ma leen dalal la ah déedéet bàyyi ma may ko ñu ñu ñëwagul Touba rek ah déedéet waaw kii kat yow yaa ngi Touba toog. non li ñu ne ay voix génneel ci yii nga ne yow yow yii nga ne ni dañ ci génn de. di ci génn ah. paasu màggal gi dañ koy may ñi nga xam ni nekkaguñu Touba waaye nekk biir ah, Touba yow nit ñi bëgg ñëw. ah jàpp kër kër bi maa ngi jëm boobu léegi maa ngi ci ligne bi. luñu luñu la jàpp allo. déglul fii. ah. naan damay rek ñu waxtaan. yaa ngi yaa ngi may jël ah. nga ni. jël yaa ngi may jël ah. non guñu sax maye bi dinañ maye nag ay paasu màggal mais buñ koy mayee nag wax dëgg yàlla dañ koy may ñi nga xam ni dañuy jóge ci bëri bii di dem Touba yow it waaye naka nga nekke Touba ba pare bëgg ñu may la paasu màggal <laughs> ah. réew mi neex na jërëjëf quand même ñi ngi lay kontaane merci alors ñu dem seetaani ki nga xamante ni moom moo di Aïda Sy comme ni ma ko waxee une ancienne waaye également xale bu mën a way découvrez la voix de cette jeune fille elle chante hyper bien pour votre plaisir c'est reparti let's go bye macha allah une Saint-Louisienne macha allah Aïda maa ngi lay nuyu bu baax a baax une très belle chanson euh, pour débuter carrière moom tam yow laa desee ndaxte euh, nit ku nekk rek am na koo xamante ni euh, boo ci xasee ba ni ngooy bu yaboo nga téye ci ndaxte genre xëcca gi benn lañu duñu ne duñu ñaar. Zaaru Grégoire gi rek mën nga leen am dal fu ne mën nga cee am ndaxte wax dëgg yàlla ay nit lañu yoo xamante ni boo leen xasee bëgg mën nañ yàq sa xol mooy ñi nga xam ni wax dëgg yàlla mbëggeel gi ñuy woote dunduñu ko liñ lay wax du dëgg. lu ñu lay wax ci ñoom du loo xamante lu dëggu la ci ñoom kon nag c'est diamétralement opposé entre Kheucha et ki nga xam moom moo di Grégoire et tout ce que je vous dis c'est la vérité parce que man bu ngeen honnêtement yéen yéen xam ngeen ni yéen ngeen di gis ku sérieux j'ai pas l'air sérieux man ah ah Grégoire man j'ai pas l'air sérieux de quelqu'un qui est très sérieux ah? ah baax na 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum Momar daal la Momar Bisa Actu. moo def foo doon defee émission keroog <laughs> salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def ko kan la. maa ngi maa ngi lay siyaar ko kan la. Fatou Ndaw kafrin ah. Fatou Ndaw Kaffrine. maa ngi lay nuyu waa Kaffrine yaa ngi ci jàmm Ndaw. naka yi tey. fi ñu ci jàmm baax. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax ñun tam. ñu ngi ñu ngi kontaan ci émission bi. ah ndeysaan merci beaucoup Fatou. nuyul ma gërëm. ah. ma ne nga nuyul ma gërëm waa. man ah non nuyul ko sa bopp man kay Cheikh Mamour dara. <laughs> nuyul ma ko rek. <laughs> déet nuyul ko sa bopp moom mi ngi lay dégg kay doo ko nuyu. <laughs> waaw ne ko gërëm nuyu naa ko moo gën de man jàllale ma kontaan naa ko seen bi neex na. jàllale ma ay nuyoo man booy ñëwee ah, da nga may nuyu boo ma nuyu ma ñi ci kër gi ma nuyu leen mais gën a gaaw moom mënu ma la ko moo moom. nuyul ko sama nuyu nag mooy may wax ma mais mais boos taay day day ree de <laughs> mais Fatou kontaan naa. na kontaan naa merci beaucoup système AN jërëjëfati ndeysaan kontaan nañu bu baax a baax ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog seen kër eh, janok ñun di ñu seetaan préparé leen seen euh, on serait chez vous ngeen yónnee ko 77 823 13 89 bu ko defee nag ñu dem seeti nag ki nga xamante ni moom tam moom ma nga ca de l' autre côté foofu ca Richard Toll euh, garçon exceptionnel mais booy. bëgg naa la. da nga fayda da nga ñàkk fayda. Euh, euh, ce garçon également, je l'apprécie parce que il est il est hyper même talentueux avec une très belle voix de l'autre côté à Richard Toll qui dit Richard Toll dit Dagana qui dit Dagana dit Podor qui dit Podor dit Saint-Louis qui dit Saint-Louis dit Louga donc c'est euh, un digne fils véritablement euh, de cette zone bi nga xam ne sitel naa leen ko léegi léegi il se nomme tout simplement Amades Amades pour votre plaisir les amis on regarde ensemble c'est parti. chanson ça part d'amour et quand ça part d'amour Grégoire est content parce que nag moom day ba mbëggeel nag euh, day dund mbëggeel day jooy ndax xale yi day jooy Grégoire jooy na ba ay bëñam wadd ndax ah, ndax jigéen jooy na ba ay bëñam wadd ndax jigéen temps yi la ko posé moo tax mu wan ma ci image bi ni ma gaynde ma ne ko waaw mu ne ma euh, euh, posé naa moo ngi posé Grégoire bi gis ngeen ko noonu dama oh Grégoire am naa la tey damaa yàgg gis ngeen Grégoire yi ak ak socc bi day wane ne am na bëñ bëñ yëpp a demoon yëpp 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo. allo waaw. waaw kooku kan la. man la Gise. Ndeye Gise noo def. ah maa ngi fi. Gise maa ba maa ngi lay caare. waaw. loo bokk ak Gise. moom Gise ay wokk lañ. ay mbokk yéen. waaw. dëgg la maa ngi lay siyaare Ndeye Guissé. waaw yaa ngi am jàmm fooy wootee Ndeye Guissé. ah. ku fi woote woon démb. ah ku fi woote woon awa awa awa ja. waaw. Kaolack maa ngi wootee Kaolack. yaa ngi Kaolack. waaw. kontaan naa Ndeye Guissé maa ngi kontaan ci yow dégg nga. waaw. ah Ndeye Guissé waaye kontaan naa dégg nga. nuyul ma papa et maman ay ca xale yaa nga ko ñoom itam toog di seetaan ñu ngi leen di bu baax a baax maay seen morom man lañ def morom jërëjëf merci à Amadeus l'international l'homme de Richard Toll Dagana Saint-Louis en homo ñu ngi lay gërëm di la kontaane alors ñu dem voyager dem fan Gambie Gambian people they say I love this man cause he is so important for all Gambian people and love him boys love him everybody love this man cause he is a good good good good singer

sa crédit bi dafa jeex. sa <laughs> crédit bi dafa jeex lu tax mu jeex. waaw. <laughs> ndeysaan so I'm happy. I'm so happy. Okay. Thank you for calling. Thank you for calling. Okay, thank you. Ndeysaan, okay. ndeysaan. I like them. I like them. Let me finish, Gregor. Let me finish. Let me finish. Thank you. Uh, thank you. So right now, this man, I like him because he is a good artist and Gambian people, they love him. Senegalese people too, they love him because he's a good artist and um, boys, everybody love him. So it's just for you, for all Gambian people. Let's do the show with Attack from Gambia, from Senegal, from all around the world. Mr. Attack, let's go! li nga avance moo bëri mais c'était euh, euh, vers le début euh, kon nag yow yow teg ko foofu rek ma bro ma bro attaque xoolal bu ma ñëwee rek da nga ma leen di président rek man nga xam ne dama leen daa booleel ak yéen artiste yi nekk fii surtout dama leen euh, ma boole ko xale yi nañu bàyyil ay aw bànneex ak day nax rek nekk ñooñu lëmbaluñ fenn lañ lëmbalul ay naxekat kese lañ jërëjëf merci beaucoup l'international attaque bomb thank you my big bro Mr attaque ñu dem seeti nag booy na booy boo xam ne man Euh, euh, euh, bu may joxe turu artiste Sénégal un vrai un vrai nag laa leen wax man kii mooy sama artiste artiste laa wax un artiste complet boo xamante ni moom day fecci bu feccee nga ne kii na bàyyi li muy def te xam ni fecci la man mais bu woyee ak baatam nga ne noo booy bii moo fi ne so moom ci lu mu indi moom ci style am man je l'adore je l'estime et je l'aime bien Bilou c'est un vrai artiste ça c'est moi qui vous le dis regardez cette chanson ça cartonne ça déchire pour votre plaisir toujours on let's go back. Shout it. Merci beaucoup, Mr Bilou. Il était euh, avec nous, Grégoire. Euh, tu te rappelles à Mbour, tu te rappelles à Saint-Louis, tu te rappelles euh, foofu aux Parcelles Assainies. Voilà, on parle des Parcelles Assainies. Grégoire, la vidéo bi nga xamante ni xale boobu ndeysaan ma taseloon parcelle euh, te mu piqué euh, euh, te mu te mu ndeysaan te te bànnee xam ci man mu indil ko xëm boobu mu xamoon dama bëggoon bu fekkee yaa ngi may seetaan s'il te plaît maa ngi lay jox benn numéro numéro bii ma lay jox na ci woote wala nga message ci normal après tu mu dis que yow la parce que dama la bëgg gis dégg nga depuis lors bëgg naa koo teg bët xaw ma nu may jaar euh, j'ai vu regarder sur mes commentaires euh, sur TikTok mais ça fait plus de 2000 commentaires et 6 millions 400 vues xaw ma 200 6 millions 200 à 6 millions 400 sur TikTok donc vidéo bi dafa def buzz de telle sorte que euh, je voudrais vraiment te voir à nouveau bu fekkee yaa ngi may seetaan numéro bii may joxe waxuma leen yéen ñi may seetaan ngeen woote ci numéro jaamur bi numéro bii pour moom mu woote dimbali leen ma rek xam ne da ngeen civilisé kenn kenn werantewul yéen a gën a civilisé ci réew mi kon bàyyi leen ko moom bu fekkee ni mi ngi may déglu nga woote ci 78 463 34 15. wala nga message foofu rek boo fa messager ni man la woon moom après dina ma jox sa numéro ñu mën a euh, waxtaan dégg nga 78 463 34 15 bu ko defee ma mën la fekk sa kër man tam euh, euh, gisanteeg yow laa misoo ak yow loolu laa bëgg kon nag jàpp ci bu fekkee dégg nga ma rek dégg nga na nga joxe numéro bi après incha allah je ferai tout pour je ferai le déplacement ànd ak Momar business attitude ànd allah ñu mën a ñëw sa kër ñun tam gisanteeg yow Momar dégg naa barki na benn émission boo demoon mais est-ce que seetaan nañ la parce que 11h 13h le monde entier le Sénégal ñëpp dañuy contempler wu ci 11 13 je sais pas ba xam seetaan nañ la mais bu fekkee aussi am ngay extrait tu peux me les envoyer maman nga merci davantage bu fekkee jot nga lool rek mën nga ñëw. ñu woy ba tey ci 88 628 14 13 jël leen seen ticket euh, euh, ci euh, xam nga ticket point com bu ngeen fa demee mën ngeen am ticket Viviane Chidid ak Wally Balago sek waaye également Dip Doundou Guiss yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen teewee bile événement waaye itam le 10 waa Mauritanie ña ngay waaj ñoom tam seen rendez-vous ndax xam naa ni lu nar a lay doon il se peut que je sois là kon nag yéen tam nag mën ngeen nu xaar 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. alo alo oui. Oui, bonjour. Bidji Khassa. Oui, c'est moi, mon très cher. Naka la gain yaa ngi cool. baax yaa ngi cool. macha allah alhamdulilah. naka yi tey fooy wootee ak noo tudd. ah. allô. ah il est parti merci quand même pour l'appel ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ñu dem seeti nag mam mbëggee borom mbuur waa mbuur seen doom a ngi xale bu mën a way macha allah ndaxte nag euh, sañse euh, euh, dafa mel ne yaram a koy dégg te yaram a koy def ndaxte lii ma sol nii boyfriend c'est pas donné à n'importe qui c'est pas donné aux hommes yi nga xamante ni seen taille dafa gàtt wala ñu moyen foog nga am taxawaay dëgër këj pour mën ko sol kon nag Grégoire way wii ma nga xam ne mbëggee way na ko may naa la ko pour nga xam ni sañse du du rek ay jean du rek ay body du rek ay casquette léeg-léeg da ngay da ngay stylé léeg-léeg ngay sol loo xam ni gars yi du duñ ko sax xaar kon loolu la ñuy wax un sañsekat kon nag luy may naa la ko jógee pour votre plaisir amis chers téléspectateurs c'est reparti Une très belle chanson de cette demoiselle, elle se nomme tout simplement Mamba Gueye de Mbour. Merci beaucoup Mamba Gueye, une chanson euh, vraiment boo xamante ni ku mu déggul wala mënoo sañse euh, doo ko mën kon nag ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax merci euh, Mamba Gueye de Mbour gërëm nañu la bu baax a baax a baax petit boy mbokkum yaay Bass Thioung petit maa ngi lay souhaiter un très bon anniversaire joyeux anniversaire happy birthday to you et dundal la total mbokkum yaay Sibéru Faye mbokkum yaay Bass yow dafa mel ne yaa ak ay ay jumeau ngeen kon nag dundal bu baax Sibéru yow itam maa ngi lay souhaiter un très bon anniversaire bonjour salaamaaleykum allo. allo waaw. waaw mais kooku kan la. man la. yow la kan. man la Yacine Touré. yow la. man la Yacine. Yacine maa ngi lay siyaare fooy wootee. maa ngi wootee Medina Baye. Medina Baye maa ngi nuyu waa Medina Baye bu baax a baax a baax. <laughs> fay nañ la. soxna Yacine mu yaa ngi toog di seetaan. yaa ngi enjoy. maa ngi enjoy. mi ngi neex si yow. waa dëgg la nani ma sama xarit yi ñëpp ñu ngi lay nuyu ay nuyu ñu nuyu ma leen ma leen na ngeen def ñi ngi ci jàmm a ah kontaan naa Yacine dégg nga nuyu naa waa Medina Baye yëpp yónnee leen ma seen onze chez vous léegi léegi waaw leen ma ko léegi soxla naa ko ci 77 823 13 89 ah maa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm bu baax Aïe Allô, oui Waouh Ça va Ça va Ah. <laughs> yaa ngi la. maa ngi cool. man la Awa. yaa ngi la Awa. oui. ah Awa maa ngi lay nuyu Eva bu baax a baax. waaw alhamdulilah bu baax. maa ngi lay siyaare kontaan naa dégg nga soxna wa waaw baax na merci. merci pour l'appel Medina Baye yëpp nuyu naa leen itam jox leen seen wàccuwaay xale yaa ngi toog fu ne ci kër yi Grégoire euh, di seetaan yor seen téléphone euh, euh, Aïcha c'est bon boss. jërëjëf merci merci waaw. ayca gërëm nañ leen depuis Medina Baye ñi ngi leen di kontaane ñoom itam bu baax nee naa la xale yee ngi toog fépp gëré di toog di seetaan di enjoy ñoom lii la ñu bëgg moom vacances wax dëgg yàlla boo seetee xale yi kenn réeratul de 11h à 13h xoolal ci ñi ñuy def journal naan dañuy réer 11h 13h benn xale réeratul ñëpp a ngi ci biir kër yi toog jàkkaarloo xëca ma leen di bégal ñoom lii lañ bëgg. moo tax nag yaay yi nag ak papa yi jël leen ay ay initiative si man nag jot na ngeen teral ma yaay ak papa yi toog laa wax ma ni jot na ngeen teral ma xale yi heure bi daan ngeen leen fekk ñu dem dex ga géej ñii dem foowi ñii di leen tànk yi dagg ngeen di yóbbu hôpital ak ñoom seen yooyu yëpp dakk na ndax 11h ba maa ngi tëj xale yi bu bu 11h 13 añ bi day yekku ñu añ daal di sieste tëdd du ngeen mas a di gërëm ma nag ah, doy na waar gis nga nag boss bu nekkee gërëgwaar billaahi wallaahi gërëgwaar du liggéey parce que je fais des trucs il il yoonam du nekk ci dara man nag boos ak gërëgwaar moom nañu xool nu ñu leen wala nete bu ko yàlla neexoon bi tey dina bu ko yàlla neexoon bu ko baax na jërëjëf kontaan merci beaucoup euh, ñu way euh, xale bi maa ngi lay fàttali ni la euh, euh, boss nee na jox na la démb sama numéro donc da nga message normal dégg nga message ma normal message normal nga ne ma man la après mo je vais je vais te rappeler tout à l'heure dégg nga jërëjëf merci beaucoup euh, donc ci li ñu jëm moom mooy gré merci di gërëm bu baax a baax maam bëggee ki nga xamante ni nag moom mooy dan dan mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo xew ci jamono ñu ngi koy nuyu moom tam bu baax a baax wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare ci 88 628 14 13 salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw ça ko kan la. allo Richard. waaw man la de ko kan la yow. man la Ndiémé. Ndiémé maa ngi lay nuyu Ndiémé noo def. maa ngi lay fay. Ndiémé maa ngi dégg sama bopp ci suuf de wala yow jël bi mi ngi sa nopp. maa ngi nii teg sama taal nekk di la seetaan. nga ni ma fan ngay wootee Ndiémé. maa ngi yow. maa ngi nuyu waa Yoff bu baax a baax a baax yéen a ngi am jàmm dégg nañ la. <laughs> dégg la kontaan naa de soxna Ndiémé kontaan nañ ci yow. macha allah merci beaucoup. yow la ñuy bégee yaa fi nekk. wallaay man ngeen bëgg jëf kenn du yéen ci man. nuyul ñu kooku sa sa xarit bi nu mu tudd sa mu lakkal la rek. nuyul ko sa bopp man xaw ma turam de. ay yow nuyu ko rek. waaw dama ko mën nuyu de nuyu ko. Guédé Ba ñu ngi lay nuyu bàyyi xasaam yi ngay sonal. Euh, yow jéema sino waaw yaa ci jàmm. ma nag yaa ngi ci jàmmam. ñu ngi si jàmm bu baax. yéen a ngi cool yaa ngi toog di enjoy sa muy neex ñoo ngi dañ lay seetaan rek di la bëggee. wallaay ndeysaan xam naa loolu kontaan naa. kontaan naa ci yéen bu baax ñoo ngi nii jàkkaarloo 2 bi ngeen jàppee ba tey bàyyiwu leen kenn du yéen ci man. kontaan naa ca nekk leen si jàmm. wallaay jërëjëf jërëjëf kontaan naa. émission émission ñëw na fi changé ah, xam nga naa fi ay cinq plateau. Grégoire. Grégoire Grégoire. sama dangay doya benn émission changé naa ci cinq plateau man autorité <laughs> gi alquranu karim autorité gi Grégoire laisse tomber parce que li mu mel mënuma la ko expliquer merci ñu ngi lay gërëm système ay dem seetaani daan nag ah, ca lu ne ga mu waxoon lu ne gu neex lu ne goo xamante ni lu spécial pour votre plaisir on regarde cette chanson de Dan pour votre plaisir let's go bye Une très belle chanson de ce garçon il répond sous le nom de Dan merci beaucoup euh, li coow li bari bari dan ku ko waral doy na waar ay ñu ngi lay gërëm quand même bu baax a baax a baax ñu wéy àndandoo ak yéen euh, ba tey euh, Grey je te rappelle que ni nag tey on serait chez vous yi gën cee gaaw ci 77 823 13 89 ñu dem seeti kan Grégoire réveille-toi ay waay li lan la man Grégoire liggéeyul de ah non ñu dem nag seeti ki nga xamante ni moom moo di Dieyna Baldé euh, dara xewul ndaxte euh, c'est une très belle chanson d'amour euh, rapidement pour votre plaisir regardez ce titre de Dieyna Baldé Let's do the show right now Aïcha Une très belle chanson d'amour, une très belle chanson de cette demoiselle. Elle se nomme tout simplement euh, Dieyna Baldé Dieyna naa way wile neex na lool ndax day dugg ci xol nit ka nit ak mu bëgg rek nopp ko wax dëgg yàlla loo ko ci wayal wala loo ko ci waxal rek day neex ci xolam kon nag euh, ñi bëggante nag laay wax wax ma dul bëggante genre Grégoire ak Boss gi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn ci ñoom ñaar ñooñu toog mënu laa wax ni kii la bëgg parce que seen xol yi dafa bari dafa ayca <laughs> jërëjëf Grégoire c'est bon pour on serait chez vous ou pas euh, sinon mën nga ma euh, kaleel sama benn euh, découverte bi ñu war a am léegi léegi moom jox naa la clipam keneen ki xam nga ko déjà 88 18 14 13 bonjour salaamaaleykum allo. allo. oui bonjour. di man la kookan la. am calling all the way ah, from Gambia. Thank you for calling. What's your name, sister? Ajimenge. What? Ajimenge. Ajimenge from Gambia. Nice to meet you and nice to see you again. I don't see you, but nice to meet you, I say. Thank you. And like, I'm um, enjoying your show. Repeat, please. I said I'm enjoying the show. You enjoy the show. Why you enjoy the show? Because you like the program or not? Yes, obviously, I like the program. Oh, I'm so happy. Yes. Ndeysaan, I'm May so happy. Blessed always. And, and, and what do you think about the, the way when I dress? That's good or not? It's Ma like, it's like. You like super, my dressing? Super, super, super, looking super handsome. Oh, thank you, Sister Mine. You love me. I know for real that you love me. yeah, obviously I do. And I love you too. I love you too. I just say thank you for all Gambian people. Thank you. We love and you. And thank more. you too, sister. And where you come thank from in Gambia? You you from in Gambia where? Banjul. Banjul. Banjul. I yes. like Banjul. I like and I know Banjul. Seriously. So thank I, I, I seriously like seriously. <laughs> thank anyway, you. thank you. Thank you. Thank you for calling too. Okay. so happy, so happy for all Gambian people. And um, Gregoire, when, when you see me and when I speak English, I'm like, uh, like Michael Jackson or like, um, like uh uh, uh, uh, artist of United States. You just say, this boy, he's a good, good, good presenter. He's a good DJ. Because I know the aspect and the importance of English. Because the reason why I like, I like this language and I speak it very well, my man. So. Guy, guy, come on, come on, man, come on, a on. Come on, come on, man. Wait! Wait! Wait! Hey! Yo, Mike, so yo. bi ma sol nii bii panca 92 bii ngeen yaakaar di jën booy da ngeen dof booy gis ngeen anglais dafa am solo moo tax jëm leen ngeen jàngi anglais surtout les élèves dem leen ngeen gën a dem gëstu man sax dégguma anglais kenn déggul anglais so xanaa gambien yeeg nigérien yi ak états-unis parce que ñoom loolu mooy seen langue mais that's the first language wherever you go wherever you want wherever you do you need to understand and to speak this language loo mën a def ci àddina làkk bi mooy làkk bi ñu gën a làkk ci àddina dem leen ngeen jàngi ko dafa baax dégg ngeen moom il suffit ngay def ay mistakes mistake mooy erreur di def ay er-, non non non xoolal yow comprendre li nit ki di wax nga mën ko tontu appui that's over that's not difficult loolu kase la boo ko ba pare boo ko déggee ngay waane man sama waane gi yëpp loolu la parce que damay leer ni man li may làkk <laughs> am na ñu ko bëgg te làkk ñu ko moo tax damay waane xam nga waane dafa neex Neymar ku ko gën a waane ci terrain Messi dafa mën football mais dafa waane Chris dafa mën football mais dafa waane mais noonu la nit ki li ngay def da nga cee war a jéem a improve improve mooy améliorer ngeen gën ci mën a euh, euh, euh, gëstu pour gën cee mën am dara kon nag ñu xool li nga xam ne moom moo di <laughs> on stress ma xool nit yi toog seen kër ñoom itam naka lañ toggee di seetaan seen émission bu leen di accompagner Jidee Xassar waaw ñu leen bëri doole ñu ngi nii si Gambia ñu naan. di joxe saa ñu ngi nii ñun waa Kaolack jàkkaarloo Buzz TV di sant on stress dëgg neex di déggal loolu. Alaaji Fallu moom. jaay ñu réel jënd ak taalibe moo bari jaamo ma def di dindi was lu leer ma dende lu leer mu dende tey sañ fallo man daamaye moo bari jaamo e sava di je xasa ñu ngi lay ñii di la seetaan waaw kay paas màggal la bëgg nag nag waaye alaaj nga bëgg a màggal yow it kaa paas dan dan dan Ay! Nga! Ay! Ay! Asan, yow lañu bëgg régime bi yokk cek cek cek cek cek cek merci beaucoup merci beaucoup je sais euh, comment ça fait plaisir de voir des gens euh, qui t'admirent qui de voir des gens qui t'adorent Grégoire euh, da lay motiver davantage kon nag wutal ñi la bëgg ndax yow euh, ki sama noon nga te ñii ma bëgg mun ñu laa bëgg parce que moom ñoom man lañ bëgg yow mun ñu laa bëgg kon wutil ay ñi la bëgg dégg nga yaag sa bëñ ñu jeex nga ne noon da ngaa poosé ay ca ñu woy anadoog yéen nag euh, ba tey juste après cette chanson dinañ am ki nga xamante ni nag moom moo di l'international papi donc prépare-toi davantage ma jël ki ne ci ligne ba pare ci 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. allo. allo. ayca kooku dem na mën na ñëwaat ci 88 628 14 13 merci euh, une très belle chanson euh, bi nga xamante ni euh, jël nañ ko léegi ci dana alors dañuy dem seeti nag ki nga xamante ni moom moo di Djiba le Boy l'homme de Thiescaye l'homme de Ndakaaru l'homme du Sénégal en un mot le chouchou de la jeunesse un garçon trop même aimé par la ñu ne ko Djiba le Boy félicitations mon ngi lay nuyu waaye bàyyi ma jël ki ne ci ligne ba pare doog ñëw ci yow bonjour salaamaaleykum maaleykum salaam. maa ngi lay siyaare kii kan la man la Oulimata. Oulimata maa ngi lay nuyu fooy wootee caat. maa ngi wootee xaar yàlla maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax yéen a ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm waa. naka yi tey maa ngi ci jàmm bu baax. naka vacances yi yaa ngi enjoy. waaw ñu noonu la noonu la noonu la kontaan naa bu baax a baax a baax sister mine dédicace lañ bëggoon nii. dédicace ay ca vas yi kan laay tudd. Amades. Amades. waaw. j'ai déjà mis Amades Oulimata. bon je te laisse avec Djiba euh, ça va te plaire. je veux que je te laisse waaw Djiba baax na. bàyyi ma laal la Djiba xam naa leen ba ngeen bëgg Djiba Djiba wax xew di. luy loolu. waaw moo xew moom. jeex na dëgg la Thiat. waaw merci merci Oulimata. merci beaucoup. alors rapidement ñu may ko Djiba le boy un garçon exceptionnel je vous l'ai tout à l'heure Grégoire damay bëgg leget gi di démarrer nga xam ne dañuy ñëw rek songu yow mais yow doo nante instant yi son bi dafa commencé daw su may wax Djiba tak commencé dawal son bi léeg-léeg gi kaj kaj kaj gi di ce garçon Djiba la booya merci beaucoup euh, Djiba ñi ngi lay kontaane bu baax a baax a baax yow itam euh, ndaxte euh, gone la goo xam ni gone gu mën na way la gone la goo xam ni ndaanaan kulli fadrin la juste après cette chanson s'il te plaît gré la ñuy doog a dugal gars yi ndax ñu am benn temps boo xam ne après boss doo fi nekk di dagg ay clip ak ñoom seen parce que xam naa ni si toutefois ñu teel leen dugal nii rek dañuy am faay quoi benn faay bu ndaw kon nag mën na jëm seetaani ki nga xamante ni nag moom moo di l'international sëy la xale yu jigéen ñu jug jaayu une très belle chanson également de cette demoiselle que j'estime que j'aime bien euh, pour le plaisir de tous les téléspectateurs et juste après vous aurez les découvertes d'aujourd'hui euh, ñi nga xam ne ñoom lañu dalal tey ci plateau bi Dieyla pour le plaisir des téléspectateurs Miss Gré c'est parti moo dégg moo mën a way maa ngi koy nuyu Dieyla merci beaucoup di euh, masawu sama frère boobu di Khadim Temps di ko jaale ndax way juram bu jigéen moom tam dafa wàññeeku kon xadim euh, l' équipe de la 2STV ñi ngi lay jaale sa way jur bi yal na ko yàlla euh, aljana fi daw si lay ci masaw bu baax a baax a baax ayca merci beaucoup alors rapidement mi segré tey découverte kañ la ñuy doon wala kan la ñu war a seetaan c'est un garçon euh, de l'autre côté je sais pas si c'est à la Médina Médina nga dëkk wala Gueule wala fan Médina de l'autre côté à Médina Médina Grégoire yàgg nañ fa gis star yàgg nañ fa gis ndaanaan yàgg nañ fa gis ñoo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee dañuy yëkkati flambeau bi teg ko ci kaw actuellement kii dafa nekk xale boo xam ne waa naa dañ ko bàyyi xel ñu nag xamaguñ ko man de ma part je le connais pa je maîtrise pas mais gis naa son bi déglu naa son bi damay bàyyi sénégalais yi découvrir ko après ñu xool voix bi lan lay joxe découverte 11 13 de ce jeudi on va voir si avec l'international Papy pour le plaisir des téléspectateurs. On regarde ensemble Grégoire, clip bi mu ñëw playback et juste après on aura l'occasion de parler avec lui. C'est parti. Musique baa ngi nii, mbalax baa ngi nii, waaw lépp benn la. Aar baa la. Tey ma fas yéene la delloo njukkal yow ngir ak fi ma indi tey ji waaw Aryaama wan sama yoon xamal ma lu ma xamutoon waaw mama fekk lo teg ci di ma bëgg lo ar mooy sama bondi sama héro bi ma yegg lo mélodie bi may daaj lo lu ne dégg nañ ko te lu ne daaj nañ ko xëccubul dagul dikk yaar baa ngi nii musique baa ngi nii balaf baa ngi nii waaw lépp benn la aar baa ngi nii musique baa ngi nii ndaw la woon ba tey daw taxul ñu xadi waaw bis dina ñëw lépp baax ma laay musique ma tooy musique dafa ne ci xol pop mengo flow musique yóbbu waay xam nga ko waay foo mën a nekk moo lay wéttale aar baa ngi nii musique baa ngi nii mbalax baa ngi nii sama artiste bi dama ne le papi fii toj de aar baa ngi nii musique baa ngi nii mbalax baa ngi nii lépp benn la kaay nii fële papi nii ngay taxawee xaar fii waaw ay waay papee ngi waay. papi noo def. waaw xasa maa ngi lay nuyu. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax a baax a ah, baax. ah bi neex na de. waaw lool la ñëpp wax de. ah loo ci way nii. waaw ah. yëkkatil micro bi ci kaw. waaw ñun de aar lañ way. aar bi nga way. waaw loo wax ci aar bi way way ko ma xool. aar baa ngi nii musique baa ngi nii mbalax baa ngi nii waaw lépp benn la aar baa ngi nii baa ngi nii mbalax baa ngi nii waaw lépp benn la ma fas yéene la delloo njukkal yow. ngir fi nga ma jële ak fi ma indi te ji waaw aryaama wan sama yoon xamal ma lu ma xamutoon waaw <laughs> ay ceeb neex na de ah way waaw lii moom neex na ku la bindal texte bi texte bi ah ñun de ñoo ko xalaat si ñoo ko xalaat yaa xalaat quoi waaw man sama benn xarit ñu maa ngi koy nuyu dugg am si dugg aar baa ngi nii aar baa ngi nii musique baa ngi nii lépp benn la léegi Grégoire neen da lay tegal benn bit avant ngay nuyonteeg téléspectateurs yi nga ñamal leen ci sa baat ba pare ñu xool beneen musique air musique parce que fii boo ñëwee découverte dañ lay bëgg découvrir demal ñu xool benn way rek waaw demal man jigéen bu ma yàlla booleel mësuma bëgg kenn di ko ma yàlla booleel mësuma bëgg kenn di ko jooyloo ndax moom man la bëgg te man moom la bëgg waaw guddi xaajee mu def cuuraay ma foog ni fa la yem mu def ay fer ñàkk na ma bay ñàkk na ma waaw waaw waaw waaw mi ngi naan de ah oh pop pop da la bay ñàkk na la ma waxal bi waaw loolu la nuyu la téléspectateurs yi waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar képp kuy seetaan 2S TV rawatina xasaa xale. waaw maa ngi leen di nuyu di leen siyaar. waay ma ma xool man waay ma. xaaral maa ngi ah. <laughs> mais di nuyu tamit euh, saba waa dëkk Mbacke Bawol ndax man ah, doomi Mbacke laa. Mbacke laa juddoo fa laa yoroo fa lépp doore. di nuy sama yaay ju baax jooju fa nekk muy Yacine Fall Fall jaga yaaram yàlla na yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal suñu kanam suñu maam mbental waaw. maa ngi nuyu képp ku seetaan émission bi waaye. Eh, way ma yow. tey ma way la yow di jëxasaa ni ñuy wayee maami góor ñee tey ma gañ la yow di jëxasaa ni ñuy gañee maami góor ñee di jëxasaa lay gañ tey xale yi si yow ñuy jàngee lu baax mag ñi tamit si yow la ñuy royee lu baax soo meloon ni xasaa da ngay su ma la gisatul danaa la laajte fañ nga si man bépp gàcce lu tax nga ne bu ma la gisatul lu ma yaakaar mu tas <laughs> gërëm gaar gërëm gaar nekk nga fayda barki alquran karim li nga gisatul bi nga wax ni la gërëm gaar de la nga ma wax bu ma la gisatul mais man su ma gisatul dama lay laajte ndax ah. yow yaa yaa ngi faj ci ñun bépp gàcce waaw loolu la la loolu la waaw foofu nga wayee quoi waaw mais kañ nga commencé def aar yow man aar nag maa ngi si dugg 2010 2010 oui ok 2010 ba léegi waaw maa ngi si affaire yi yàgg affaire bi de waaw ah, gis nga de yow def nga ñaata 12 12 ans ñaata clip nga am. man man am naa 3 clip ak i quelques si kii rek single yooyu. Ah. yaa ngi joué ay soirée ak yooyu. maa ngi dem. tel micro may invité may dem ah. ah. ay soirée ak yooyu. dañ lay invité ci soirée yi quoi. waaw may dem mais da nga war a teg sa orchestre nag. parce que yow boo tegee orchestre war na mën a génn war nga ci mën a génn de. waaw ñu ngi si yoon ñu ngi si yoon boobu. yaa ci yoon teg orchestre bi. teg waaw. yàlla yàlla jàppale la. Mm. lan nga ñuy may pour tàggatoo. waaw di wax euh, balaa lool damay nuyoowaat. waaw di nuyu non di nga waxaat di nga waxaat damay wax nga mayaat du dara ko mayaat leen dara waaw. silence. xaaral gërë gaar accompagner la gërë accompagner ko ak benn instrument comme que moom ndaanaan la te 2010 ba léegi mi ngi way kooku kooku foo ko génne dafay génn ndax ndaanaan la am na expérience ci domaine bi mu ne xaaral gërë may la benn affaire ci suuf rek nga ànd ak moom lal ko. ñu xool ba tey ndax ndaanaan nga nag ndaanaan nga parce que fii ku fi ñëw waay rek ndaanaan nga te waay nga osé nga kon nag ñu ngi la ciy gërëm gërëm may ko benn affaire. ñu boole suñuy xol suñuy xalaat teg la jox la suñuy carte foog ni boo ñëwee rongoñ jeex na mais boobu ba léegi rongoñ ji jur di tuuru suñuy dënn àdduna xuuru kaña la dafay eh, eh, rees <laughs>

ok léegi mën nga tàggoo ndeysaan ku am kersa nga nag ndax da ngay sëgg rek. nitu kersa nga. waaw fi may tàggatoo mooy fenn xasaar. maa ngi nuyu. <coughs> sama ñi may liggéeyandoo hôpital Abass ndaw di nuyu Mara di nuyu Papis Sagna di nuyu Alaaji sama xarit di nuyu waa Mbacke Bawal ak waa benn baraag yëmbal. sama maire bu baax boobu maire a kase Tagaar ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Rama jaajëf xësa en tout cas gërëm naa la bu baax a baax man tam. waaw di nuyu tam des na. milk maan. waaw milk. moo ma mettre en rapport ak yow naan feccu liir bu deexee nday jaay tey sa mbagg ya milk. wax dëgg yàlla dafa yàggoog ñun boobu ba léegi mi ñuy téye di ñuy teete di ñu wan mm, yoon bi. ndeysaan nee na ma invité la ba tàyyi nag. kon nag man euh, milk jëlaat naa lépp delloo la ko. Euh, di la nuyu di nuyu sa famille aussi. Euh, dégg naa ñoom tam ñu ci jàppale ñu kon gërëmal sa famille dégg nga. kontaan ci yow merci. jaajëf xasaar jaajëf mën nga ma joxel micro bi foofu ci ginnaaw laata may wéy anadoog yéen merci beaucoup papi mën nga dem noonu ci ginnaaw papi jërëjëf waaye papi waay <laughs> yàlla na nga dund papi gërëm naa la bu baax a baax a baax on va à la rencontre d'une euh, demoiselle boo xam ni elle est de l'autre côté à saint du Sénégal euh, fa la jógee ba bërki dem moo Ndiaye samedi passé dañ fa demoon benn concert bu doon amal ci vacances de ouf ak la 2STV yi xale bi ñëw et vraiment bi mu nee day waay ma ne waa kii am na fit de ñu ne ma ne ko ana sa single mu ne ma singleogul ana sa clip mu ne ma clipam man looy mu ne ma sama baat donc loolu mu ma daanalee laa leen bëgg a may Grégoire yow itam accompagner ko ci euh, ñu xool euh, laataa ñu nuyoog moom Kumba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar tu es très si jàmm. la Saint-Louisienne kenn du la def dara yow dafa la neex yow waa ndar ndar nga ndar ndar kenn du ko def dara naka mu nag. yaa ngi cool waxal ci micro bu baax. cool maa nii rek. Ah, naka naka tey baa yoon bi sonnoo. sonn ma de. ah kañ nga ñëw. ñëw naa démb. démb ah mais ça va yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm alors ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. asalaamaaleykum téléspectateurs yi may seetaan maa ngi nuyu sama yaay avant tout parce que son na si balaa maa ñëw. ndeysaan maa ngi nuyu ñëpp aussi ñi may seetaan comme Bella sama manager. Mhm. ah am nga manager macha la ah, dëgg mhm. indi woon foofu sax. ma mhm. commencé di def yooyu mooy loolu. maa ngi nuyu ñëpp daal ñu may seetaan ngi nuyu xam nga ni àddina ngi lay seetaan tey. xam xam nga ni 11 13 la ñëpp di seetaan. alors Gré euh, dañuy xool ak yow naka la ñuy euh, doxalee ak Kumba mu may nu benn affaire bu spéciale pour les téléspectateurs qui nous regardent vas-y may nu euh, l'instrument que te que que que tu nous avais mis l'autre fois donc ñu dégluwaale ko déglu li ci suuf Kumba nga way ci pour bégal sénégalais yi yokkal ko ko. bu la kenn jaral ngay changer ni nga mel fexeel mel ko bu la kenn changer ni nga mel continuer ko bul gis nit di ko iñaane waaw gis naa la ngay dox nga jaaxal ma lool doxin wi ñaaw na aay ah, ah. bul mësa changé ki nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw yow bi jeexashaay mënoo fee ñaaw ndax danga wane mbaax fuñ la fekk dangay ree <laughs> <laughs> loolu moom mooy nuyoo bi euh, Grégoire euh, merci euh, ci instrument bi am na yeneen yu ko gën a yu mu gën a miin ak yu mu gën a miis bu fekkee ni ak chanson Kumba le pour Kumba Kumba nga tudd et tu as la voix de Coumba Gawlo aussi c'est moom mooy sa moom mooy sa sa référence sa idole tu chantes euh, les chansons de Coumba Gawlo am nga titre am nga single amagoo dara et je te donne l'occasion parce que yaa ñu wan benn affaire bu spéciale loolu nga ñu wanoon laa bëgg man ak yow ñu kaf ci tey Grégoire hmm, li nga ñu wanoon la fois passée da ngay way en amour mais wayal ci kaw ak sa baat ñu dégg la. je peux chanter la chanson de kii bi ma chanté woon n'est-ce pas. bi vas-y mais wayal ci kaw ak sa baat dégg nga ci kaw ñu dégg la baax allez vas-y Gré sama ma tàgg woon doo ma yóbbee bile coono sama xol boo ma dàgg woon doo ma yóbbee bile coono L'amour est le plus beau sentiment qui soit. Je ne me lasserai jamais de faire ses louanges, car il comble la personne de bonheur et lui fait sentir spécial. Mon amour envers toi, Kumba, a même dépassé les limites. dama maranaan te ragal ndox mi xoo l'amour fait vibrer l'amour c'est la tristesse l'amour c'est le bonheur l'amour est si spécial quand je te regarde j'ai comme l'impression que je suis en train de dormir Kumba I love su ma jugee ba jëm ci moom ngir yegge ko sumay xalaat sama fil wi daal di koy ragal mooy wondeelu jaaxle lool xoo mbëggeel ah man ak mbëggeel. mbëggeel mooy xalaat mooy lu kenn mënul daj mooy lu kenn mënul jàpp mooy lu mënul wax. mu doon loo xam ni lu gaaw la lu éphémère la loo xam ni nit da koy sentir lu spécial sama mbëggeel ci yow lu doy waar la ci man sama xol ba ma tàgg woon doo ma yóbbee bile coono bëggu may wàdde lu Quand je parle d'amour, ma bouche tremblote. Mon corps tout entier vibre d'émotion. Mon regard envers toi me donne l'impression que je suis en train de voir ma mère. Je suis en train de voir la personne la plus spéciale dans ce monde. Je t'aime fort, mon amour. I love you. Appreciate. <laughs> Elle chante hyper bien, mais je suis un vrai philosophe aussi, hein. Je suis un philosophe en matière d'amour, je suis un expert en matière d'amour. Donc gërëm naa la, tu as une très belle voix et euh, vraiment tu as à soutenir et à encourager. En tout cas, ñu ngi lay féliciter davantage. Lan moo nekk say projet tey euh, ci li nga nekk ci sa domaine bi ngay yëngu. man depuis parle ma nekkee xale ba léegi. waaw damaa teel a bëgg a musique. à l'âge de cinq ans laa nekkoon Corniche Bar kër ñoom Belandour macha allah euh, avant tout damay gërëm DJ Zal parce que moo ma njëkk feeñal moo ma daan yóbbu. Saint-Louis foofu ba ma fa newee. DJ Zal DJ Zal c'est mon ami Zal maa koy nuyu. c'est le mari de la sœur de Bella Ndour. ah Gazou Ndour macha allah di ko gërëm. Zal maa ngi lay nuyu mbokkum yaay euh, xaar maa ngi leen di charré. depuis ba ma amee 5 ans laa daan dem théâtre laa daan def di woy en même temps Bella Ndour mais elle est une artiste moo ma daan yóbbu moom aussi de comme genre li ngay def nii da koy def et aussi. ah day théâtre comme li ngay def nii di comme genre philosophe nii. ah oui di di wax nii. ah moom day yox loolu. ndar ndar Bella na nga def yaa ngi si jàmm maa ngi lay nuyu. Hmm. moom ma teel a dugal ci genre yooyu. ma daan dem di théâtre ba ma dugg Mboro kon fa ay temps ñu ma daan yóbbu aussi ñoom laay méng maa ngi koy ziar waa Subatel musique ma daan yóbbu ma daan def ay musique fu mu xam ni daal fii war naa fa mën a feeñee ma fay yéegal ba tey jii ma ñëwaat fi encore Saint-Louis. nga ñëwaat fi yaa ngi doog a ñëw tu vas voir après incha allah jërëjëf kontaan ci yow. merci d'être venu dafa am leneen loo ñu bëgg may. bëgg naa la may la acca vas-y may nu. lu ma du ko def. dafay dëkk ci di tooñ. ndeysaan. si ma naan ko baal ma. eh waay. waaye moom laa. ma ko gisee ah su may bët melax lu waral lool su may tànk jaxasoo nga ni ma sama lamin reer ma ndeysaan ndax moom laa nopp ndeysaan di je xëca xëca gis tuñu wuy Sénégal Sénégal yow la ñuy seedaan xacaa xacaa ay ndeysaan ah, Sénégal xacaa lañuy seetaan dama koy teral la ilaha illallah ay waay xale bi wax nga loo xamante ni nag mooy la am de barki maam Cheikh Fall gërëm naa la man la Sénégal di seetaan man la réew mi bëgg ba tax na man itam bëgg naa la bëggal la suma bopp Grégoire euh, xale bi xam nga ni ndaanaan la ah ah bëgg la GS Production soo kuulee yoon bi nga war a jaar ba noonu bëgg la bravo bravo et félicitations à toi Kumba merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi. maa ngi tàggatoo maa ngi nuyu ñëpp ñi may seetaan comme je l'ai déjà dit avant ma dem bëggoon naa sax way sama yaay parce que dafa sori ci man. vas-y ka balaa may tàggatoo. sama gàllaaj rawaan nga ci lëndëm jukki nga ci leer yëpp ndeysaan ay ca vas-y vas-y c'est bon c'est fort c'est fort merci waaw jërëjëf ah sa yaay sàll la sant ndeysaan ndeysaan sama doom bàyyi la bàyyil jooy dégg nga yaay booy ñi ngi lay gërëm yow sàll ngaari lamtooro bourgade tukuleur ale racine sàmma ngaari jamaal loo duñu doyul sa doom ji yàlla li ngay xaar ci moom mu yeggale ko ci kàttanu yàlla gërëm nañu la bu baax a baax merci à Saint-Louis merci ma région ma fierté merci a baax a baax ñaari numéro ngay am Papi Beng benn numéro la Maxtaar mën na am ba ñett ba ñeent parce que moom dafa dafa toppoon ndar kon xam ngeen code la rek nañ ko codé bu baax a baax Père Tafa di gërëm bu baax a baax sama euh, euh, ki xam ne moom moo di sama ennemi Grégoire et merci beaucoup à Boss Yandé le manager de tous les artistes <laughs> moom ku ñëw mu manager la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di la kontaane yow itam merci à toutes et tous et rendez-vous inchallah rabi lundi prochain et d'ici là passez un bon week-end merci FK et borom droit Rivoli yëpp maa ngi leen di xaar la famille ana añ bi maa ngi ñëw léegi léegi kon sama gars yi euh, jàpp leen foofu ngeen capp ko te xam ne beneen yoon inchallah mooy dàq merci et passez un bon week-end artiste que vous connaissez, que vous aimez, que vous adorez. Si vous aimez le hip-hop sénégalais, voici Mr. Cash. nelaw mooy semi dee gën mën a fay lu baax sama dëkk la wës ñu la parole à un des pionniers du beatmaking au Sénégal. qui répond sous le nom de Dixa. Il boit pas de duel, trop de plans promo et comédie. Mon cocon alien dit beaucoup de stress sur ses mélodies. Bon, on a une relation une société sur Bob. Moi, je pense pas que ce soit une bonne direction, on comprend. Mais d'un côté aussi, il n'y a rien qui est proposé de l'autre côté, en fait. Tous les anciens artistes, anciens entre parenthèses, c'est-à-dire les artistes qui étaient là avant ce changement-là, il faut qu'ils proposent aussi. Parce que les gens, ils veulent de la musique. Mais quand tu proposes pas, il n'y a pas de contrepartie, en fait. donc dafa ñëw na ak benn anomalie mhm. au niveau des dents donc mu li ngeen gis nii seeral ba bu baax matta donc vous voyez que ba kaw bi ba suuf bi dakaay muur alors que ba ñu kaw moo war a muur ba ñu suuf hmm. vous avez vu donc la dent est à l'intérieur donc soo xoolee xale bi fii dafa jug mais fii dafa noox. ok et léegi comme ba ñu nag si yax la sax si elle grandit comme ça. Mhm. fii dafay continuer di màgg. Mhm. mais fii day téye yax bi du màgg. voilà donc dañ koy dañu on va lui deux dents. donc c' est des yoo xam ne c'est situé en haut mâchoire bi mhm. donc on fait une anesthésie bi nga xam ne moo tudd anesthésie para apicale. donc juste on pique au dessus de la dent au niveau de la gencive.